li ma ci wax mooy que ne def nañ ko ci dal ak jàmm parce que ñëpp avec consensus parce que concerté nañu les deux groupes les le groupe Liberté Démocratie ak groupe Benno Bokk Yaakaar ak non inscrits ñoom ñëpp ñu indi seen membre kenn ku ci nekk am fi nga xam ne yaakaar nañ la fañ loo inscrire di nga ci mën a liggéey bi am solo ndax ñëpp xam nañ ne liggéeyu assemblée nationale commission yi la ñu gis ci nag ay euh, coppite parce que commission yi bu njëkk 11 la woon ren it ñu doli ci ñetti commission yo xamantene day gëna a liggéey bi nga xamné mom la député yi di liggéey à l'Assemblée nationale ndax euh, éclatement wu commission finance gis ngeen ko donc ñu dogal ci économie alors ak euh, commission bi nga xamné moy commission développement ñu créé ci commission bu bees bo xamantene dafa lié ak ressources euh, naturelles yi ndax gis ngeen ne Sénégal réew mi nga xamantene sentu nañu pétrole ak gaz bu bari ci ay at yu néew kon loolu defe naa ne bu création commission bu mel noonu fii ci assemblée nationale day gën a taxawayu député yi way day gëna envers euh, le gouvernement gëna a dëgëral it sunu taxawaay envers la population parce que lo xamante ñun ñëpp ko bokk te ay ndaw réew yi nañu defe commission yi danañu ñu gëna mëna permettre ñu liggéey. sunu liggéeyu euh, parlementaire. benn nit amul sañ dugg si ñeenti commission ba juróomi commission te gis nañ ay nit yoo xamante ku si mel ne Jéema Njaay ba dugg na a def loolu ñoom ñu dindi leen ndax kenn ku nekk ñett nit ñetti ñetti commission nga am sañ-sañ ak benn commission kooku jàpp naa du luy defar ci Assemblée nationale lépp lu mën doon rek nan tënk ci règlement intérieur bi règlement intérieur bi daf ñu wax ni nit ku nekk amuloo sañ-sañ ak maqaama di dugg ci loo xamante ne wurulaa saa dugg mooy tey ki ñuy wax maanaam questeur moom moom moo yor xaalisu assemblée mënul yor xaalisu assemblée pare di dugg si commission bi war a contrôler xaalisu assemblée kooku loi bi daf ko tere kon jàpp naa ne même Moustapha Niasse bi nga xam mi ngi tëj wax na ne ku bokk si membre de bureau bi amoo sañ-sañu bokk ci commission yooyu noonu pour nga bokk sa ci biro bi kon loolu rek day wane ne li nga xam moom la ñu wax te dëgg tax ñu di ko wax surtout si kii wala kële loolu assemblée moo ñu ko jox te il faut ñu wax ko mais yéen député yi nga xamante lu leen xamuñu sax kan li nga xamante ni mooy commission yi nga xam moom jàpp naa ne loolu tamit lu war a jar a xoolaat ko